bawol info moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor yu xarañ seen liggéey bawol info point net le portail Ndaamaatu dafa bokk ci ville yi gën a jege jumaa ji Ndaamaatu dafa bokk ci ville yi nga xamante ne moo dafa bokk ci ville yi gën a am impact ci dëkk bi ndax gis nañ ne hôpital bi mi ngi ni même pas cinquante kon. tali bii nga xam ne moo jugee gaar bu ndaw jugee jumaa ja ñëw ba ci village ndaamaatu jëm ci hôpital bi war nañoo taxaw def seen yitte ndax gis neen ñuy def Touba ay travaux yoo xam ne bii moo ko gën a farlu moo ko gën a nekk farata ndax lan jege na jumaa ji te dafa am fu mu jëm muy si hôpital bi ndax gis nañ fi ay jafe-jafe bokk nañ gis nañ fi ambulance boo xam ne dafa ñëw pour bëgg a jaar ci yoon bi dem mënul jàll da gis ne jigéen ja nekk ci biir nee nañ ma ngay jooy ndax lan yoon wu ñàkk baax nga xam ne dañuy tegg ñetti at a ngi nii oto yu bari dañuy teggi tey corniche bàyyi nii hôpital Ndamaatu bàyyi nii tey ambulance yu bëree bëri di sëf doomi aadama yi ay jigéen yi nga xam ne tey so ñooy suñu yaay bu méttee ñoom la woon bu neexee tamit kon ñoom la war a doon dañuy bëgg dem fi pour am doom pour ñu jàll sax day nekk problème fii la ñuy nekk yéeg ci ambulance di yuuxu ba ñun ñooy jug guddi gi lu mën di métti métti ambulance bu fi bu fi foncé ñun ñooy jug jëlee ko fi gis nañ ne que nawet bi daanaka ñu ngi ci biir ndax tey rek daanaka ci guddi gi xaw na wicc wiccal fii ci Touba te su gënee taw fii dina gën a doy waar ci ndox nga gis lu ëpp ay 30 nangam kër dañ fiy juge boo demee ba ci jumaa ji rek jumaa siñ Sëñ Saaliw nga xam ne ajjuma dañ fi julli daanañ dem ba dootuñ fu mën a julli ndax fees te itam ay palaasu liggéeykaay yu bari yu fi tëje da ngay xool boutique yu bari daanu nañ téer yu bari daanu nañ kenkaayir yu bari daanu nañ ndax lan ñetti at a ngi nii tali bi doxul kenn ñemewu fee tijji tijji benn place ndax place boo fi tijji mu daanu waaw yoon bi di liñ ci gën a métti sax mooy jeunes yi nga xam ne tey nekkoon nañ fii di fi daan seen doole tey isaan yi ñoom ñëpp ñàkk nañ seen liggéey jom ak fulla ak fayda moo leen may ñu nekk di engagé ba tey tey ñu fas yéene ñëw defar li nga xam ne moom mooy tëli bii nii. mosuñoo gis benn yoon ndawal euh, président de la république wala ñenn ci ñi nga xam ne ñoo yore wàllu assainissement yi wala yi ñu ñëw fii pour def ci liggéey bi bu buñ fi mësee ñëw itam boobaak léegi gisaguñu benn effort bu nga xamante ne def nañ ko fii pour jële fi ndox mi wala jë jële fi salte gi fi. politiciens yi nga ñoo fi ñëw nag ñoo leen wax ne tey dina dakk bii bépp politicien bu fi ñëwati indi sa média ah, waaw bépp politicien boo xam ne ñëwati nga fi indi sa média pour politiquer Touba Ndamaat dina dakk ay jeunes ñoo fi nekk yu ah, engagé yoo xam ne tey loolu day dakk képp ba ñu tuñ ci dara nag milliards koy defal buñ ci mënoon dara ñoom duñu leen ci woo Baol info point moo leen di jox ay xibaar ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey Baol info point net le portail du Baol sur le web